jëf ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax euh, di leen wax bisimilah rek ñu fa yéene door waxtaan wi comme ni nga koy tàmm di defee saa su ne ci solution info TV 30 minutes euh, crono alxamis ju ne ngeen ci ànd ak ñun euh, war bun xattaab Guèye di gërëm El Hadji Modou topp saa njóogu sony bu maa jigéen Assane Mesere mm, suka ak béteg ñëpp ñu ngi leen di nuyu ba ci Aïcha. ñu ngi ziar ñëpp di leen nuyu tey ji nag ñu fa yéene ñëw rek ci li ñuy waajal suba di la 17 ak Ousmane Sonko ak ndam li ñu yaakaar ne Ousmane Sonko mën na ko am waaw wuteeg ñu bari gis-gis ci côté boobu yaakaar nag lañ ci am pour plusieurs raisons dina expliquer lu tax ñu am ci yaakaar ci bisu ëllëg bi dina ñëw ci Juan Branco ak taxawaay bi. ak yenn ci waaba jiba yoo xam ne da ngay dégg ñu naan la Juan Branco mooy star bi Juan Branco mooy lii lu tax moom bu ñëwee moom rek la tudd xam loolu seytaane yi bëgg a jaxase njabootu Sonko ay awkaam ñoom ñoo koy wax mais di leen expliquer présence su Juan Branco ak li lu tax mu gën a fees euh, léegi nag li jëm ci Mame Mbaye aussi dinañ ci wax ak génn yu mu génn ak baax Barthélémy Dias Amadou Ba ak ñi jàpp ni matul tudd matul tabaski maanaam xeexul xuloowul atewul xeex yooyu yëpp dinañ ci dikk ak yeneen yu ci xaj rek ñu xajal ko ci di gërëm ñëpp di sant lu tax ñu koy dooree Ousmane Sonko ak euh, bisu le 17 bi di àjjuma mu war a sëgg ca CEDEAO sëgg sa ci Ndakaaru maanaam Ousmane Sonko la ñuy atte ñaari yoon ay mbiram loolu nag mës am ci benn bis ñu jàpp atte pour benn nit di ko attee ca bitim réew waaye tamit di ko attee fii ci réew mi loolu rek moo lay wan ni Ousmane Sonko nit ku exceptionnel la <laughs> maanaam li gars yi di bañ ma nit ku exceptionnel la nan ma wax ci àddina ban nit lan mës a teg di ko atte ca bitim réew di ko atte fii ci benn bis nan ma wax bu dul Ousmane Sonko nan ma wax kan la loolu nag mooy méngoog nit ki nit ñi danoo bokk te yamuñu tey may ñëw ci àtte boobu xam nga lu tax àtte bi yéeme mooy li ëpp ci senegale yi CEDEAO lañ gën a yaakaar que justice bi nekk ci réew mi imagine loolu ñu dem ba gën a wóolu bitim réew ko suñ réew ci àtte da dégg nit ñi la la la am la xew ca CEDEAO lay nar a am ñun de am nañ ci yaakaar waaye li xew ci réew mi amuñu ci yaakaar te ñaar yëpp di ay justice di dox ci code pénal ak code de procédure pénale loolu question boobu war nañ ko poser ñi àtte fii ci réew war nañ poser question bi pourquoi ñu wóolu ñeete ñun wóoluwuñ ñu <laughs> loolu dafa garaaw maa lu tax ñu wóolu ñee te wóolu te ñun ñëpp kenn xamagul lan mooy jógee CEDEAO kenn xamagul lan moo jógee Cour suprême mais képp ku ne yaa ngi tërëf sa doxin moo jeng maanaam ku di képp ku ne yaa ngi tërëf rek te doxin moo jeng kon loolu justice réew mi war nañ ci jàng lu bari sànq dama ne leen da ciy am ndam man leen lu tax may explique loolu dama mës a dégg Ousmane Sonko mu wax nii moom dafa gëm allemand yi les allemands ñu ni ko lu tax mu ne parce que danoo am mental jamono bi ñu gënee nekk ci jafe-jafe. gana jamono jooju la Allemagne yi gën a taxaw pour gañe mu ne man ci football sax Allemagne laa doon supporter man loolu dégg naa Ousmane Sonko mu wax ko te pourtant Allemagne da nga leen doon dominer sëkkatal leen dominer leen mën a leen mais à la fin c'est la l'Allemagne qui gagne looloo tax bii ma ni à fin c'est sonk qui gagne kon mentalité allemand boobu taxoon moom mu gëm Allemagne ba di ko supporter ba mu ne nañ jël exemple ci Allemagne yi Ousmane Sonko boobu tey jii gëm naa ni moo tax mu ne fi ba tey jii. parce que li nga ko teg yëpp il faut avoir un mental d'acier il faut nga dëgër këj pour mën a dékku li Ousmane Sonko dékku ci réew mi am na ñoo xam ne buñ ko dajoon delloo nañ avance bu yàgg am na ñoo xam ne buñ ko dajoon xàddi nañ bu yàgg am na ñoo xam ne buñ ko dajoon si signé nan ay protocole bu yàgg pour fexe na lañuy génnee parce que nag fii ci réew mi ah du nu ay mag de waaye nag ñu ngi fiy bëgg a yàgg gis nañ fi protocole de midi bu sa Seck en 2007 gis nañ fi protocole de minuit bu kii di idi tamit ci mbiri idi la woon ba ci mbiri Karim Wade protocole de Doha gis nañ ko fi le protocole de Conakry gis nañ ko fi ba ci Karim Wade mooy bi Abdoulaye Wade di demee Conakry ñëwaat ak Alpha Condé ñu gis fi protocole de Massalikul Dinaan Khalifa Sall génn signé ma dara mais avocat moo signé waaw yooyu yëpp dundu nañ ko ci réew mi. moom la kenn déggagu ko ci yooyu te nag mi ngi dund dund loo xam ne tey jii nag neexul kaso moom neexul ndax du kër boo fa neexee da lay lijjanti mais doo sa bopp mais malgrétou tout mi ngi am conscience malgré fa mu tegoon tànkam mun ko fay teg mën na am bu nangu woon dem jalo mën na am bu nangu woon ay compromis mën na am bu nangu woon ay compromission tey jii li mu daj nii du ko daj ndaxte boo xoolee élection présidentielle yi ñu jëm mi xalifa di Karim ñoom ñëpp lan lañ leen bokkale ci émission yi yi mooy danoo nangoo dem dialogue maanaam ñi nangoo dem dialogue d'accord la ñu war a d'accord moo tax nit ñi tuddoon ko ab dil parce que ab dialogue waxtaan la mais dil mooy baara yégoo jëm ci mbiri politique te boo xoolee. tey ji li Sonko di bari dund lu bari ci biir dialogue bi am na ci yoo xam ne dafa favorable ngeen ni mais dafa défavorable Sonko lu tax ma wax loolu mooy li jëm ci élection présidentielle li ñu jëm bi ne nombre de députés yi ci parrainage optionnel yi li ci ëpp dañ na fukk ak ñett dañ ko natt ak nombre de députés yi taxawu dakaar mën a am natt ko ak nombre de députés yi wallu mën a am pourtant waxuñu 15 waxuñu vingt waxuñu vingt cinq pourtant Benno Bokk Yaakaar bi ñoo amuñu problème boobu mais fexe nan ba xalifa ak Karim xaj si kon Ousmane Sonko tey jii liñ koy teg lu bari bu ko nangu woon mun na am du ko dund mais malgré tout mi ngi am le mantal d'acier mental d'acier boobu nag mu ne ci allemand yi looloo tax mu fan leen dafa am benn chroniqueur nekkoon football katu Angleterre nekk tey consultant yi gën a mag ci àddina bi ñu naan ko Gary Lineker dafa waxoon ni football ci yi laay dikk de ak ni ko Ousmane ko doon waxee mun a football ci benn terrain la nga koy def mun a fukk ak benn jour ñoo koy football mais bu dee Allemagne yi mën nga leen a dominer dominer waaye ba fa match bi di mujj ñoom ñooy gagné loolu nag di mental boobu Ousmane ko jël ci exemple mais aussi wax ne ay nitam xeex foo ko gis ci àddina bu ñu demee ba egg ci combax njombaxtal la maanaam fa ceex bi a jeexee fa lay gën a méttee mais foofu la xaddi gën a yombee mais maa ngi leen di ñaan rek ngeen téye te bañ a bàyyi. loolu tax bisu suba bi doon bis boo xam ne bu doon ni Ousmane Sonko dafa leble bor du du ñàkk ni ca la yaakaar ñu bari fay ko ko mun na am bu nekkoon ci biti tey kenn du ko ci jiitu. ma ngay waajal live ba di wax ban taxawaay lan war a am waaye tey jii li ma wax rek ku nekk ci kaso kenn du la lijjanti waaye yaay lijjanti maanaam doo lijjanti sa bopp mais dal lay lijjanti usmaan Sonko lu tax man la dafa am mental acier ci allemand yooyu mu doon wax te lépp lu mësa sumb bu ñu demee ba ca njombaxtal la moo cay am ndam xamoo ci lan laa ko teg Ousmane Sonko. impôt et domaine la tàmbalee bi mu fa ñëw liggéeykat yu impôt et domaine yi seen koom-koom bariwul woon ay syndicaliste maanaam amul woon syndicat impôt et domaine liggéey bi jafe seen coono bari mu xëy créer syndicat ay nit ay nit wóolu ko syndicat boobu tey jii moo jur ñi di waa impôt et domaine seen dundin changé mais aussi seen taxawaay changé ba ku leen gis ñee leen. kon moo yeewi waa impôt et domaine waaye tey jii waa impôt et domaine bu ndee bàkkoo teranga ak ay fonk ma Ousmane Sonko mi da cee am wàll te pourtant xeexu syndicat boobu yombul woon ci moom ndaxte fii ñun xam ne ni syndicat di doxee képp ku ko fi sumb wala nga sooke ko fi lu ne mën na la ci fekk mais malgré tout Ousmane Sonko xeex na ba am ci ndam ba tey impôt et toll fi mu toll yamul foofu ñu dem ba bis ñu créé benn parti bu ñuy wax Pastef moom ak ay nitam parti bi kenn xamu leen woon kenn déggu leen woon ñi dem ba benn jamono parti bi di gën di sëq di gën di màgg 2017 mu dem législative ñu yóbbaale ko mais après yóbbaale bi présidentielle la jëm parti bi màgg ba toll ni mu toll te pourtant ñi nekk ci administration bu Sénégal ñoom doon doon wax naan ñoom duñu politique. surtout ñi nekk ci côté impôt et domaine bariwul woon li ñuy dugg ci nitu politique amoon na ci benn benn ci jamono yu Senghor Abdou Diouf mais niñ ci fese tey amuñu ci kon tey jii mi Amadou Ba ak ñeneen ñoo xam ne du ma tudd seen ci impôt et domaine nekk ci nguur geeg opposition bu ñemee Ousmane Sonko moo leen dee kon tey jii administration Sénégal tey jii bu demee ba mën a am ndam ba mën a taxaw positionné wu Ousmane Sonko da ci am wàll loolu ndam la ci moom. tubaab bi dañ ko wax nee na mérite bi mi ngi dellu ci rek ci ki njëkk tàmbali maanaam ginax gu njëkk ginax la waaye yëpp jeneen lan rek te pourtant yooyu yëpp ay risque la yu mu jëloon ñu dàq ko impôt et domaine biñ ko dàqee ñu bari toog ni day sommé Ousmane mii jeex na te pourtant ci ay waxam nee na bi muy def quinze ans daf na woon bu defee quinze ans de carrière day arrêté yàlla dogal mu def 15 ans ñu dàq ko nekkate yàlla bu la naree taal dalay xambee say matti noonu nekkate pexe ak dogal yi Macky Sall di jël dogal yooyu ñooy liy yëkkati son ko mu jóge impôt domaine ñu foog ni sumar lay doon mu dugg assemblée sénégalais yi ne ko xaanu fay la weer ñun ñoo lay gere lan doon bañ mu wax ko ci impôt domaine ak di ko bind mu taxaw ci assemblée di ko wax tey li jëm ci wàllu foncier buñ ci mënee am yenn xibaar yi Ousmane Sonko la li jëm ci wàllu administration li jëm ci wàllu budget Ousmane Sonko di ci leeral lu bari sénégalais yi ibbi seen bopp loolu ndam la te pourtant président Macky Sall avant deux mille dix-neuf li mu lan la daan nappee opposition bi mooy bu dee ci débat politique lu leen neex wax leen mais ci wàllu réalisation ak ci wàllu débat économique kenn du ma ci fekk. Macky ko doon nappee gars yi Sonko ñëw relever le défi waxul politique de créer livre tuddee ko solution solution ba mu jeex koom-koom rek la ci Macky di wax mbiri koom-koom rek la ci président Macky di wax bizarrement mbiri koom rek bu ñu dem ba ci wàllu koom-koom nguur gi loolu arrangé leen wàllu koom-koom arrangé tu leen ji nga boo xoolee en 2019 ci campagne Ousmane Sonko li ëpp ci waxi Ousmane Sonko mbiri koom-koom la pétrole bi gaz bi les ressources naturelles les ressources extractives maanaam sunu gàncax sunu géej sunu lii lépp Ousmane Sonko jël ko teg ak sunu gànjar gi nekk ci biir suuf si ci Ousmane Sonko laa xamee man baatu zircon zircon ne ñun nekk na ñun sunu suuf am na zircon la lan doon or ba say Sabodala pétrole ñu ñëw débat économique gi tegu maa ngi fàttali Mohamed Boun Abdallah Dionne bi ñu demee ba tàyyi ci coow li. Mohamed Dionne naan mbiri pétrole bi ku ci xamatul dara bu ci wax mbiri mille milliards yu sunu quatre cent mille Aliou Sall léegi bi mu demee bu dominé leen ci débat économique bi xam ne boobu tam beneen ndam la mooy Macky da leen défier woon ci débat économique Ousmane Sonko ñëw relever la defi loolu tax ma ni la lépp lu mu sumb mën na metti njëlbeen mais fa muy mujj mooy ndam lay doon da leen seetlu Ousmane ko ñu jóge ci yooyu yëpp ñëw ci mbiri aji Sarr jàpp tëj bàyyi deux ans ñu koy topp Macky sàll jàppoon na ni képp ku mu jalool ci opposition ci senegal balaa ngoon mu lijjanti sa mbir Karim xalifa Khalifa Sall ñépp mu lijjanti seen mbir jël PS def ci poosam PDS ci poosam jël AFP def ci poosam ñëw ne opposition bi dinaa leen delloo ci zéro réduire leen à leur plus simple expression waaye ci Ousmane bi mu dajee ci Ousmane Sonko la daj dëgg mars deux mille vingt et fan la mujj mooy woote wàllu mooy ndaw yi comprendre naa leen bu si sëriñ ci waxul woon mën na demee neneen loolu tax ñu ne Ousmane Sonko nitu fitna la. xamuñu ndaxte nag di di duma mbër ba mu egg ci saaku yi bu la neexoon nga jekkali ko mais bi ñëpp ne nanu nanu yam moom ndigal la xalif général de mourides joxe woon ak kilifa diine ci réew mi da ko jëfee loolu du ndam ñuy daw di daw ba juin juin deux mille vingt deux ñu war a dem local ak législative local yi. li ëpp ci collectivités yi ci réew ci gox yi gën a mag ci réew mi wax waxuma commune village yi de mais ci dëkku taax yi Ousmane Sonko gañe ko ak waa Yewwi Askan Wi ñu ñëw ci législative député yi ñu dind turam liste tutélaire bu Yewwi ñu ko ñu éliminé ko ñu ne Ousmane du bokk Ousmane na leen man may bokk bokk ci nii wala nee rek battre campagne ak waa yeewee askan wi te balaa loolu local yi Ziguinchor une semaine la fa def wàcc ndakaaru wër réew mi bojoo ak nguur gi ñu ñëw ci législative la même chose ñu dem ba yóbbu leen cohabitation maanaam pour la première fois au Sénégal opposition di diiranteeg mbagg mbagg ñii di parti au pouvoir malgré appareil bi ñu yor yépp malgré yàq gin yàq deram yëpp ci mbiri Adji Sarr malgré terroriste la malgré rebelle la malgré salafiste la malgré violeur la sénégalais ne ko teel la gën a bëgg teel la gën a wóolu mu mu duma leen ci législative dem toog te balaa loolu mbir Mamour jàlloo indi nañ ko fi 94 milliards balaa loolu cool yi bari coow yi bari coow li bari xam fa leen mu jóg Sonko mbir mi sa nekku ci du yow la ñu tooñ ba tax nga war a topp Mamour jàlloo kenn waxu ko waxoo dëgg de dana ko sa nekku ci loolu du ndam te pourtant mbiri Mamour Diallo lan la wax Ousmane Sonko day kàcc Ousmane Sonko li wax amul mais fu mujj mooy na ko demal toog ñii dem ba bis ñu ñëw ci législative yooyu may wax législative yi weesu ñu yëngalaat mbir Adji Sarr woo ko ci procès Ousmane Sonko dem ak ñoom procès naa fekk yu bari violeur la moo agressé xale bi moo jël paaka teg ci put bi lu nañu wax fu mu jëg moom corruption de la jeunesse di xaar montagne bi génnee gaynde ñu jékki-jékki gis ay kaña di génn ci montagne bi walla ay ginax ñëpp naan mais kii liñ ko jiin dix ans deux ans yëpp li dee ci réew mi yëpp ak ñi tëj ci réew mi yëpp fii la mu mujjee ak Adji Sarr ana Adji Sarr mu doon lappi lappi ana ñoom Gabriel Kane ana ñoom Mathieu Trois Pommes ana ñoom Sidi Ahmed Mbaye ana diw ak diw ñi doon wax ci mbiri Adji saar yëpp ba ci ñoom Mame Mbaye yi bi mbiri Adji Sarr ñëwee fu mujj ñi ko doon jiiñ viol yëpp. kon est-ce que amul ndam parce que dem na ba ñu gëmal ñu bari ñu violeur la mais avec le temps maanaam mbir mi dafa seey ba mel na montagne glace bu dellu ci zéro loolu du ndamam pourtant difficulté ne difficulté bi ne bind dund na ko moom Ousmane Sonko ana li mu doon wax ci mbiri Frédéric Nappel déggatoo ko am na benn gendarme bu doon wax naan kii mais ba pënd bi wuree déggatoo Nappel ana plainte Nappel ba ci mbiri Adji Sarr dama ba ma xam Diallo di ko jiñ ab psychopathe maanaam nit koo xam ne àndul ak ay lion quoi sagoom day day tiit di def rek wala muy tiit di wax ñu xëy ñu ne dindi nañ ko ci liste électorale yi parce que ab contumace la mais contumace boo xam ne tey jii xam nañ fa mu ne jële ko Ziguinchor indi ko cité kër góor gi barricade ko xëy ji mais yàlla nattu leen yàlla nattu leen bi biñ ko jàppee ne waa ji contumax la ab contumax boo ko jàppee contumax ba daanu na Ismaïla Madior Fall wër réew mi yépp wër mi yépp mënu convaincre kenn bu ko neexee dem seen TV ne Madior laa bu ko neexee dem Séné set TV ne Ismaïla laa di wëndeelu di wëndeelu xam ne wëndeelu bu yàggee da ngay miir daanu Macky may ko loxo na ko affaire étrangère demal toog maanaam li gaay mbay demal toog mais ma Madior demal toog ana Antoine Diome lu mu dajul ci Ousmane Sonko tas na parti bi xët xët terroriste lu mu dugg ci Antoine ana Antoine déggatoo ko ba tey ji ñi ngi dégg Ousmane Sonko alors que ñoom ñëpp seen volonté moo doon ñu bañ a déggati Ousmane Sonko communication yi ñu doon def mooy waaj bu ñu ko jàppee tëj ko tas partem kenn du waxat ci moom tey jal bu yàlla jal boo ko jalee mu jal jali boo ko jalul mu jal jali kon bokk na ko jal mu jal jali tey ji la gën a tàkk tey ji la nga ko gën a dégg ana ñënoo woon waa ji du fi ne ana ñëw nañ kenn du ko dégg déggoo toog Antoine këru diine bu ne taxaw na ko tàccu nañ ko fu ne mais Antoine Diome déggoo toog ko Adji Sarr déggatoo ko ñi bëggoon yàq waa ji yëpp anañu kon am na ndam loolu dama la à la fin c'est Sonko ki gañ di nga baat boobu gayre lay ne kër waxoon ci allemand yi Sonko fan à la fin c'est l'Allemagne ki gañ dafa mel ne baat boobu da kaa wuyu Sonko yemul ci loolu Macky Sall ñëpp xamoon na ni bëgg-bëggam mooy def troisième mandat bëgg-bëggam. mooy def troisième mandat jaral ko mu toog le 31 mai dialogue national ci njëkk de ci njëkk de ci njëkk na ma ko ñaan ci njëkk ñu xëy li xew ci réew mi ñëpp gis nañ ko mu jël décision ne mënatul bokk maanaam bi mu naan ñi mënatuma bokk sax ci xol bu naqadi lan ko doon waxee waaye lu waaye di bañ olof Njaay nee na ku la ëpp doole dala kaa tegul malgré Sonko mi ngi ci difficulté mais difficulté yi dañ koy séddoo ñoom ñaar te waxoon na ko de di nga ma rey de mais dinga nga tax de boo xoolee tey ñi mag yéexee tànn tànn candidat nga xam ne waajul woon sax pour am candidat parce que balaa loolu deux jours avant dem na recevoir ay nitam ñun nga yaay sunu candidat mu wax ak ñoom ne jël leen. bu leen nangu gaay yi leen jël leen seen i yet taxaw seen i ku ñëw nga li kon Macky mi ngi doon préparer leneen mais Sonko moo këpp yelwaan bi loolu la ko mënta baal Sonko moo këpp yelwaan bi mais yéeneem ak ni muy doxee ak jamono yi da ngay comprendre ni Macky bëgg-bëggam moo doon nekk fi te dafa amoon benn doxin bu mu doon dax jamais deux cent trois def naa ko Khalifa def ko Karim dama koy def Sonko mais wolof njaay nee na ku xeeb xal mu lakk sa dàgg te bët lu koy fatt boroom du ko gis tey jii Macky bu demul nekk troisième mandat ndamu Sonko la ndamam la ñu jóge ci loolu ndam loolu ñuy wax noonu lu tax ma ni ndamam la parce que bokk na ci ñi ko poussé parce que rapport de force bi gis nañu opposition bi bu dul Sonko amul ku mënoon tee Macky toog fi parce que loolu la gëm parce que noonu lay waxee ki njëkk de loolu mooy Macky Sall dafa jàpp lu mu bëgg dafa war a am te suñ borom mi ñu sàkk sax amul lool yàlla sax day santaane nit ñi di def leneen looloo tax ñu def remarque comme loolu tax ma ni la à la fin c'est Sonko ñu demaat ba ci jamono yi ñu toll naka de yaa am na lu la Maradona waxoon laa main de Dieu saba si fay ñu war ko jox parrainage joxuñu ko yóbbu ko Ziguinchor si ne nañ ko delloo dugal ci liste bi nañ ko jox ay parrainage am DG bañ Sénat nangu àdduna yëpp nangu ni léegi waa ji dañ koy tooñ loolu ndamam la moom mi leen doon wax tooñkat la moom mi leen doon wax nitu fitna la ñu jàpp ko sagar xeeñul dara xewul ba tey jii mi ngi ne tekk moom ak ay nitam bis bu ne ñu ut leen bis bu ne ñu provoqué leen lu ñu ñu jaf leen ko ñu ne tekki rek di xaar bis bu rafet kon loolu ndamam la yàlla dogal moom Ousmane Sonko wane ay faay yu bari ci nguur gi maanaam mënoon nañ dund ñun ba faatu te faay yi duñ ko gis faay yi mooy. ñu dem ba état ak li mu àndal yëpp jóg pour affaire carte électeur affaire carte électeur diw day bokk ak du bokk état yónni agent judiciaire de l' état ñàkk argument awma courant awma connexion dem CEDEAO ñibbisiwaat Juan Branco warul bokk ci procès parce que du africain kërëb kërëb lu ne mu dugg ci ñu war a dem léegi cour suprême ñu bëri tiit le 17 le 17 xam nga lu tax ma Sonko mooy gagné mooy Cour suprême jox ko dëgg ñàkk ko jox dëgg day am dëgg ci nan parce que ñëpp xam li xew balaa dara dëgg ñëpp ko xam maanaam boo waxee dëgg ñëpp na gongo mais boo waxul dëgg nit ñi ne lii moo doon dëgg waxuñu ko te tey jii may nan ko benn atu boo xam ne ci wàllu yoon bu demoon ba jëmmi jamono. sax ñu koy teg moom mu tooñ de ko ñu koy teg dara sax dañuy jàpp ne dañ ko tooñ maanaam dan doon wax naan dafay victimiser wu dafa may dafa mujj doon victime ci loxoy nguuru Sénégal loolu nag seen i erreur la yuñ def loolu tax man la booy bañ bañal nank booy bëgg bëggal nànk nit ki day am sago tey jii ñu ne day bokk mu dem élection balaa mi di mu gañe leen loolu leer na. yëngal nañu administration yëngal DG yëngal sena lu leen dugg ci Sénat bii sénégalais yi dañoo dem la waxatul waxu sena mbiri Ousmane Sonko tax na ñu waxaat waxi sena te pourtant ñëpp dañ doon laaj naan Sénat lan mooy liggéeyam lu tax du wax ci lii du wax ci lii kon wala fi nee na lu yëngu lu ne la ko yëngal moo ko ëpp doole. léegi nag ñaara fi am mu nekk kandidaa dem élection ci jàmm mu ñàkk nekk candidat. ki nar falu ci réew mi Ousmane Sonko moo koy fal ñaar yooyu mooy am mooy ki nar falu Ousmane Sonko moo koy fal fu mu joxoñ foofu la gars yi di xool léegi na nguur gi mooy tànn te Ousmane sonk moo gën a sedd ci ñoom moo gën a oyof ci ñoom loolu tax man leen à la fin Sonko ki gañ parce que fi mu jugee la ak li mu seq nguur gi parce que ñoom seen pexe bu matoon heure bi kenn du ko tudd. biñ koy écarté ci parrainage yi bañ mu wër réew mi danoo foogoon ni bu ne sonk du bokk ci parrainage yi ay Amadou Ba dañuy wër réew mi Sénégalais yëpp topp leen diiraan Amadou Amadou amadu mais ñoom seen bopp ñoo nangul ni Amadou Ba mii du dem matul waaja te du waaja ñoom seen bopp ñoom ñoo ko waxal seen bopp ñun ñoo ko doon wax ñu foog dañ koy dingat ñoom ñoo dem ba ci biir nangu ne du waaja mais Amadou Ba lu nga ko wax da nga kaa tey jii bari na ci tey jii ay candidats yi nekk ci réew mi ay Mamadou Ibra Kane génn nañu géew bi Thierno Bocoum génn na géew bi ñeneen ñi mënuñu am parrainage parrainage bi wéet a wéet xam lu ko indi mooy danoo jàppoon ni buñ téye Sonko nit ñi parrainé leen ñu téye Sonko kenn parrainé wul mun na am bu ñu ko bàyyi woon sax mën nañ seddoo parrain yi ndax nag yàgg nay uti parrain gars yi di uti di am. deux mille dix neuf ak législative yi uti na am gaa yi uti am mais te gun ko téye moo tëj wërsëgu gaa yi loolu da ci am solo ba ci Amadou Ba mi lu tax waa benn Bokk Yaakaar dem ba si àgg na ñun parenage optionnel bi député yi la ñuy dem jëli dakkal parrainage bi mag mu loolu du jooy moo xam la muy jooy deux millions la Ismaïla Madior Fall waxoon ni moom la ñuy utal Macky ci ay pétition pétition jaay ay carte bu 2 millions sénégalais waxe waxee ne mën na doon candidat jox troisième résultat yi wax nañu ko pétition boobu ak carte yooyu ñu doon jaay est-ce que na ba léegi nangootuñ ci wax leen dal ca carte yi nag moo leen dal ci pare naa yu Amadou Ba Amadou nag lu ko waaye wax da nga ko tooñ Amadou Ba <laughs> dañ ko yeb rek ay ay Jules Diop yi di wax Mame Mbaye Niang ay Abdoulaye bi Baldé ay Yakham mbay ay nii dañ ko yeb rek waa APR yi di di nga Amadou Ba da nga ko yeb rek waaye kin war a waxal waxuñu ak moom Amadou Ba lii ñu koy sikkee du moom da ko ko bëgg a yen mais échec gu président Macky Sall lañ jël yan ko ko Macky li ko téye doon candidat mais loolu moo téye Amadou Ba moom ba mënta dem bilan bu bon jàpp tëj xale yi di mbëkk gaal loo cay di dem réew mi kën mënatul yëngu mais échec boobu ngay gis. ci Macky sàll moo topp Amadou Ba on ne peut pas être plus royaliste que le roi loolu dañu naan Amadou Ba nii Amadou Ba Amadou Ba Amadou Ba deful dara ndoonoy Macky Sall rek bu Macky sàll defoon ci réew mi lu baax Amadou Ba bu ñëwee yoon wi day leer nañ gis nañ Abdou Diouf ak Senghor gis neen Abdou Diouf ak Senghor Abdou Diouf ndoonoy Senghor moo ko yóbbu fi mu egg bu nag la mu def la saañ ba di xeeñ. kon Amadou Ba képp ku ko yedd wala nga xas da nga kaa yab li leen metti Amadou Ba tegu leen ko 12 ans Macky Sall yi xam ne jamono ji mu waree liggéey yëpp da xeex ba fàtte ni réew mi dafa am yeneen priorité loolu mooy coow li moo du maa ngi jéggalu di la gërëm bu baax di gërëm topp ah di ñaanal ñëpp jàmm di leen wax ni mën ngeen ñu suivre ci solution info TV di jégalu nag di baalu àq ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam ba beneen yoon incha allah.